bisimila dal leen ak jàmm yu dikk yéen ci li gën a fës ci yéenekaay yi enquête quotidien la ñu koy dooree mi xëy di wax nag ci benn usine boo xamante ne nii ñu ngi ko def ca Joal Fadiouth muy wol jën di wuyoo ci turu Omega Fishing ñu ne nag boobu lépp usine daal jafe yu métti lay indil askanu Joal Fadiouth ndax nag saxaar su bon sa nga xam ti moom lay génne askan wa di ko nooyi mu di leen indil ay jafe ba tax na nag am na kuréel goo xamante daal dinañu juddu ca dëkk ba la nga xam te bëgg nañu ko daal mooy ñu daal di jëlee boobu lépp usine ci biir Joal Fadiouth ndax nag sonal na askan wi nga xam te ñoom ñoo fa nekk jamono jile journal bi di enquête quotidien tamit xëy na waxaat ci li nga xam te moo ñeel coowal politique ak pëccëxoo ba nga xam ni am na ci biir assemblée nationale mu ne nag lu ñeel wàllum déclaration de politique générale boobu ilimaani jëruñ ji ki nga xam te moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina jàpp fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar 2024 noonee la ko journal bi daal di xam ne Le Soleil yéenekaay xëy na dikkaat ci ñeenteelu édition bu bëccëg bi ñu jagleel wàllu set setal ci biir lu sensibilisation attention la nga xam te ni bëgg nañ ko jamono ji nag mooy freiner les cas tombés des noyades et accidents maanaam lab gi nga xam te ni ak accident yu métti yi am ci biir réewum Sénégal ñu daal di koy dakkal noonu la ko Le Soleil yéene kay daal xam ne mu ne nag Matam ñoom pare nañu ngir dalal ki nga xam te moo di ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko waaye tamit plage yi nga xam te tere nañ leen ci biir réewum Sénégal am na ci ñooñ ñoo xamante dañuy dem nag di fa te lu ni mel nag mën leen a indil ay jiyee waaye tamit luy toll ko juróom ñaar téeméeri nit ñoo xam te yooni Sénégal loolee dañu koy nemmeeku waaye tamit deux pour cent de PIB perdu dépollution de la baie de Hann malgré le retard des travaux avance noonee la journal bii di Le Soleil yéenekaay daal di xam Libération yéenekaay xëy nag moom di li nga xam moo nekk coowal Cheikh Nakété mu ne arrêté hier après un ordre de conduite émis par le parquet suite à ses auditions la DIC moom nag ba nga ni waa DIC daal di nañ koy déglu ci coow li nga xam yëkkati ak président de la république dañu doon xeex xeex bu métti ci biir palais de la république nag lu ni mel na tax na nag moom niki démb daal dinañu koy woo daal di koy teg loxo yóbbu ko ca kaaf ki nga xam moom moo di président bu mouvement force dooleel askan wi moom nag dana am retour de parquet niki taltini jëlee ndax ñu daal di xool na nga xam noonee la ñuy def ay mbiram waaye tamit journal bi di libération yéeni kaay daal di ci yokk ne le parquet compte demander l'ouverture d'une information judiciaire pour maanaam xool képp koo xamante ni daal di ngay bëral ay xabaar yoo xamante ni dëgguwul ci mbir moomu li waaye tamit daal di ko yóbbu ci mandat de dépôt moom commissaire Cheikhna Keita noonee la ko journal bi di libération yéen kaay di xam ne journal bi tamit di kenn ci li nga xamante ni moo ñeel wàllum déclaration de politique générale mu ne Diomaye fii pilier Amadou Mame Diop et compagnie ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Amadou Mame Diop ak député Benno Bokk Yaakaar yi nga xam te jàppoon nañu seen date ne fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar la ñu nar a ki nga xam moom moo di Ilimani jëwriñ ji Ousmane Sonko ngir mu def lii di déclaration de politique générale ki nga xam te moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ñoom bàyyiwu leen ca woñ seen loxo ne leen moom nag mooy jàpp date te ni nga xam te moom moo di fukki fan ak ñett ci weeru sattumbar mooy date ba nga xam te jàpp na ko noonu la ko libération yéene kaay daal di xam ne journal bi tamit xëy di wax ci Ousmane Sy Ndiaye directeur exécutif bu Unacois Diapo mu ni une pénurie d'oignons loo xam te ñenn ñàkkum soble bi ndax lépp yi dencoon nañ ko ci soble ci biir réew mi fi mu tollee nii jeex na noonee la ko libération yéeni kaay di xam ne journal bi dañu nag ki nga xam moom moo di Mortalla Gueye ñu gën ko xam ci nit dafa mu nekk nouveau PCA bu FEDIC moom tàmbali na ab liggéeyam tekki na ay kàddu jagleel ko ñi nga te ni ñoo di askanu Sénégal mu ne j'appelle à une solidarité tant dans l'action que dans les idées ñëpp booloo doon benn daal di liggéey noonee la ko xam ne direct news nañu fii yéene de Cheikh Saliou Mbacké rappelé à Dieu le 28 doom Serigne Saliou Mbacke bi nga xam te wuy jëna boroomam ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août 2024 moom nag mu ne il était une fois soxna Asto Waalo Mbacke kan moo nekkoon soxna Asto Waalo la nga xamante ni ràññeeku la nga xamante ni noonee la doon kennale sunu borom journal bi di direct news xëy na dikkaat ci dundug soxna Asto Waalo di leer ci Serigne Saliou Mbacke Walfadjri quotidien moom itamit xëy ci wàllum déclaration de politique générale ba nga xamante ni njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ki fukki fan ak ñett ci waru sàttumbar la ko fas yéene amal mu ne le jeu trouble de Diomaye des aveux de Sonko ou sale tour aux députés waaye tamit la crédibilité du premier ministre en question ndax li nga xam te moom moo di crédibilité ilimaani jëriñ di Ousmane Sonko fi mu toll ni do mooy li nga xam te moom moo nekk enjeu Walf Fadjri quotidien moo xam xamle mbir moomu le waaye tamit le grand panel xëy na dikkaat ci mbir moomu le mu ne date de la session extraordinaire et de la déclaration de politique générale consensus la nga xamante ni mënees na ko ci jàpp jamono yi jële daal mooy constitution bi moom moo daal di tranché en faveur de l' waaye député yi nga xamante ni daal dinañ leen ñuy convoqué plénière ni ki altine ak àllarba de politique générale bi ñu ko programme ni ki fukki fan ak ñett nekk noonu la ko journal bii di le grand panel daal di xëy fësal ci xët bu njëkk nataalu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak bopp président boobu assemblée nationale di Amadou Mame Diop waaye tamit la nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci biir réewum Sénégal face à la pression fiscale nationale et les taxes les boulangers prédisent une crise du pain ñi nga xam te ñooy yëngatu ci wàllum lakku mburu ñu ne nag boo moytuwul danañ am ay jafe-jafe ci li nga xam te moom moo di mburu mi la koy xam te moom moo di pression fiscale bi nga xam te ni am na ci yenn këru liggéeyukaay si du quotidien nañu nag bras de fer autour de la date de la déclaration de politique générale mun na ki nga xam moom moo di njiitu réew mi Bassirou fay Diakhar Faye daal dinay siffler fin de la récréation ndax nag moom njiitu réew mi nag la xam te ak ñett ci weeru sàttumbar la ñu nar a dalal ki nga xam te ni moom moo di ilimaani jëriñu Ousmane Sonko foofee ca assemblée nationale mu ne l'assemblée nationale prend acte ñi nga ñoom ñoo di député waaye tamit daal di ci yokk ne ndax nag loolu mel ndax dina mujj am am ndax ki nga xam te moo di Ousmane Sonko dana dem janoo ak woy député yi am déet ndax laata ñu fay àgg du ñu daal di tas li nga xam moom moo di assemblée nationale déclaration de politique générale du premier ministre teral nañu la date du septembre 2024 finalement retenue noonu la ko journal bi di xam l'observateur yéeni moom itamit nañu date de la déclaration de politique générale mu ne ñu nag les péripéties du choix de Diomaye interview du ministre Yankoba xam te moom moo di Yankoba Jimmi wax na ana lan moo tax ki nga xam moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye tànn date boobee nga xam moom moo di fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar waaye tamit courrier boobu chef de l'État bi nga xamante nekk daanaka moom mooy daal di recadrer li nga xam moom moo di assemblée nationale l'observateur yéeni kaay dikkaat na ci waaye tamit lan moo nar a xew ginnaaw boo xam def nañ déclaration de député yi loole lépp journal bi di l'observateur yéeni kaay dikkaat na ci ca na mu gën a yaatoo l'indépendant yéeni moo ko xam ne journal bi tamit nañu ki nga xamante ni moo di ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko daal dina dem ca dëkk bu sell ba de ca Touba Mbacke ngir nag jaale ji soxna Asta Waalo Mbacke mi xam te ni wujj na borom moom ki nga xam te moo ko dala mooy di Serigne Cheikh Saliou di leer ci Serigne Saliou Mbacke noonu la ko l'indépendant yéeni kaay xamle journal bii di le Dakar waay yéeni kaay moom itamit xëy na di kaat wax ci li nga xam te moom moo di déclaration de politique général bi ñu fa yéene amal ni ki fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar mu ne nag le bonhomme suprême entretient-il un faux suspense maanaam ñi nga xam ñoo nekk ci boppu réew mi di ilimaani jëruñ ji Ousmane Sonko ak njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax nay nekkul ab suspense la ñu a amal ñi nga xam te ñoom ñoo di askan wi jamono jile waaye tamit journal bi di kànn ci coow li nga xam mooy juddu ci wàllu mburu mi ci biir réewum Sénégal ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo di lakkatu mburu yi nee nañu nar nañ manqué ci réewum Sénégal danañu dugg ci bés yoo xamante ni ñi nga xam te ñoom ci yëngatu mën nañoo banque seen yoxo bañatee lakk mburu ndax nag ñoom pression fiscale daf leen sonal lool jamono jile l'évidence quotidien moom itamit xëy wax ci mu ne nag lan la nguurug Sénégal di xaar ci li nga xam te ni moom la ñuy woowee nature rap ki nga xam te moo xamle lu nu mel di docteur Abdourahmane Diallo ma nga xam te moom nee na nag pare ngir daal di indi li nga xam te moo di expertise am ci lu ñeel wàllum wér-gi-yaram gi ci biir réewum Sénégal laas quotidien xëy wax li nga xam te moo ñeel éliminatoire coupe d'Afrique l'heure de partir avant l'heure pour Cissé ki nga xam te moom moo di Aliou si nag di tàggat gaynde Sénégal fi mu toll ni bëri na ñoo xam te ñu ngi koy ŋàññi ni ki démb nag Sénégal ak Burkina daanaka dañoo ndar képp benn